asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu yéen ñi nga xam ne yéenay bàyyi xel euh, site bi di 24 actu euh, tey nag ku ne xam ne gis na ci suba ba léegi ñu ànd ak yéen ci liggéey bi euh, ñëwoon leen ci bis bi nga xam ne mooy bisu Cheikh Abdoul Ahad Mbacké jàmbaar ji tey nag ñu ngi ci benn bërëb ci benn ëtt boo xam moo di kër Baye Dame Cissé Daxaar gi ndax ku ne Baye Dame Cissé borom Daxaar gi nag loolu xam naa mbir la moo xam ne beneen yoon dina ci ñëw waaye tey nag dañu nekk ci bis bi nga am lu am solo loo xam ne ni seen site bi rek ngeen ko présenté nag ay jàngale yoo xam ne sunu mbokk yi nga xam ne ñoom moom la wax ne jàng muuma yi kon xam naa dañ ciy daal di ànd ak ñoom Deme kanay kanay la la Alors, de pas, euh, voici ça, papa et euh, Fall Sëriñ Tuuba jëri taadoro laay laay laay Fall si bambal jëri taa si sarum buri maa faara jëri laay laay laay Fall si bambal yaram ba nga si faru si Touba jóge Dakaram si Salo jóge Faareer si Mamba yàlla mba si Touba si Falo jóge Yare yàlla bagaay yàlla bagaay si Mamba jóge si Falo jóge yaay yaay yaay faal si Salo jóge si Mamba yaga maga yaga maga sëriñ Fallou bakk maam sara faal simbamba tuge xam nga dege yaga maga yaga maga yaga maga yaga maga yaga maga yaga maga yaga yara yara bara simmamba waya solo fano yara mbaga dere sisaro dere wara dere simmamba dere ba si faro mege sisaro yara mbaga yara mbaga dere da yai gai yagai fan sisaro dere ba fan yagam boo ko def eh, suba xooy si fawe eh, dege saabo yaga banga dege yaga banga yaga banga yaga banga yaga banga sembambaru toro si fawe dege saaru tuge dapoge simbamba si fawe eh, bege tak si saaru yarabaga yarabaga silfaro bakedoray silsano yarabagay babeef maxdorop mam sara fara tege sag ibro tege mborop simbamba dafaro tege daal لا إله إلا الله لا إله إلا الله

ngay ga bích nga khắp chư bạch kỳ nhớ phật kỳ sơ phật kỳ ấp tê kỳ sa ấp bên trong kỳ si phật bạch kỳ châu vật kỳ ân kỳ sa ngư ba và kỳ tê kỳ giờ mà tê kỳ sa ngư ba phi đa si sa ngư ga Safa, Safa, Safa.